la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu mbokki Njaasaan mbokki Tiwaawan mbokki département de Tiwaawan Alpha Mamadou Cheikh Fall le Dianis Makis moo leen di nuyu mbégte mun weesu nga am ay dëkkandoo war a am ay gan yu toll ni Mamadou Mouhamadou Diagne Sy Mbengue yu toll ni Demba Diop Sy yu toll ni soxna madame Mbacké jóge ba Pire Alioune Fall suma rak Marème Aydara suma ma Mamadou Ñing suma mag moo nani comme niñ koy waxe ñëw fekk si koo xam ni ci biir Njaasaan mu dalal ma di sama njaatige di suma sëriñ di suma xarit

ànd ko ak seexam Serigne Mohamed Abdourahmane Kunta lu ma wax ma ba ma def ko lu ma tere ma ba ko démb rek am na ko ma doon waxal tey ci suba safur la ma ni ko dey maa ngi ci fan yëpp di ko waaj Serigne Mohamed mii nii bu ma woo ni ma Alpha Monsieur Fall comme ni ma waxe tegal lii ci suuf ma teg ko ci suuf. tegal li ci suuf ma teg ko ci pour wax la monsieur le maire messieurs les mon frère monsieur le maire l'honorable Demba Diop Sy kii moom ci njaasaan mooy alfa Fall lii may yëngutu fas yéene fii ba la vingt cinq février ca ngoon ñu dégg wiiw pour notre candidat Amadou Ba lu may dugg ca moom laay jëm dinaa waxtaan nag dekk tagal mais nag Ndella Sarr mooy sama mooy sama doole waaw mooy sama doole parce bu ma sonnee bu ma ñëwee ataay ja ma nga fa du bus bu ne fu ma dem moo fa naanee fukki baraada bu ma ñëwee fukki baraada moo fa naanee bu ma ñëwee dinaa naan ñaari voilà kulli xaal ñëw ci biir njaasaan mu nekk ci commune Chérif ñu dem avant ñi biñ ci waxtaan ak le maire monsieur le maire dama ne ko dinaa dem ci maire Ousmane saar parce que mun booy dugg ci kër da ngay jaar ca bunt ba fii commune Chérif Lo Ousmane la le moom mooy bunt bi ku fi def dara te jaaroo ci moom defoo yoon kii fi toog Alaaji Mamadou di coordonnateur ñeenti yoon toogal ko fi waxtaan naa ci am moom bu njëkk ba bi ci toog ak bii ba démb ci mujj donc teewu fi mais mel na ni mi ngi fi donc monsieur le ñu ngi koy sant di ko gërëm mbooloo mi man de damay def politique mars 82 damay am habitude di ko rappeler mars 1982 laa commencé def politique maa ngi def cinquième ci ab Cheikh Ababacar Sy biir tey jii nii noppalu woon naa mais jëmm jii moo tax ma dugaat ci politique. Mamadou Diagne Sy Mbaye xam ngeen lu ko waral dafa am lu ñu naan un idéal politique boo xam que ni dama cee toppoon di daw mënuma koo dab yenn pënd bi bari loolu duma ko gis ba ma ko jegee laa koy gis xam ni am na yoon woo xam ne buñ fa jaaree ànd ak ndaw ñi ànd ak jigéen ñi dinañ ci àgg te moom mu ànd ak mu ak le président Macky Sall ñu ci liggéey pendant douze ñu gis évolution boo xam que ni multidimensionnel ci Sénégal mu war a jeexal am koo xam que ni ni moom lay teg pour mu doon candidat benn Bokk Yaakaar la grande coalition présidentielle muy le premier ministre Amadou Ba mu nañ dem ma ni ko nañ dem kooku nag moo tax ñuy def jataay bii ñu bëggoon yéen ñi nga xam que ni yéen yéen a yore kër yi di jigéen ñi man ci kër yi mbedd yi man ci tool yi ak fépp lii ngeen xam que nii le président Macky Sall commencé na ko ñu fas yéene ko àggale ak le président Amadou Ba ngeen laxasaayu gën a laxasaayu ca kër ya doom ya nekk ci kër ya jarbaar yi nekk ci kër ya fa ngeen di dem ca marché ko koo leen toogal waxtaan ak lu mën di toll ngeen xamal leen que ni ki gën ci réew mi fii ñu toll ce tournant décisif en deux mille vingt cinq vingt quatre le vingt cinq février. ki ñu war a fal du kenn ku dul Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba moo fi nekk bu fekkente ni bëgg nañu réew bi mu gën a jëm ca kanam senegal jëm kanam Ndiassane bi nga xam ni nag moom moo tax lii ñu koy def di yëngatu suba ak ngoon messieurs les maires honorables députés dama bëggoon lii ñaan la ndaw ñi ci dëkk bi yaa a beaucoup de jeunes yoo xam que ni am nañu fi formation jàng nañu soo qualifiés ils sont pétris de talent et de compétences am lu ñu bëgg ci seen bopp am lu ñu bëgg pour fii ci Ndiassane ñu bëggoon lillaahi wa rasuuli la ngeen def ci Ndiassane te Tivaouane ngeen nga xam ne fa laa juddoo fa ngeen bàyyi leen ci xel jàppale leen ndaw ñi fii ci njaasaan monsieur le maire am na loo xam que ni dinaa la ko wax mooy. am na ay ndaw yoo xam ne dañoo nekkoon ci benn wàll ba ma demee waxtaan ak ñoom ñu xam ni lii ma leen di wax ñu gis ko ci Sénégal gis ko ci département de Tivaouane war na ñu ñëw fekk si ñu ànd ak ñun liggéey pour fal le président Amadou Ba ñooñu nag même bu fekkente ni dañ naan daanu dajul suuf ñuy wax naan bala nga naan naan ne fa ñoom dinañ fa nekk ndaxte laxasaay nañ fa yéene ànd ak ñun ànd ak yéen. ci Ndiassane ci commune nu commune commune Chérif Lo ci département de Tivaouane pour fal Amadou Ba au premier tour honorable député Demba si Sy yaa nga assemblée nationale nekk ci département bi nga xam que ni c'est le plus industrialisé au niveau du Sénégal ñu bëggoon ngeen gën a bàyyi xel ndaw ñi fii jigéen ñi nag ñoom ñi ngi ci déjà li ñu bëgg rek mooy messieurs les maires honorables ngeen dimbali leen ci ay financement xam naa nag li ngeen di def Tivaouane xam naa li ngeen di def ci département bi man dama nekk seen porte parole bëgg ngeen dimbali leen jox leen ci financement yi wutal leen ay formation ba nga xam que ni dinañ mën a demal seen bopp soxla wuñu xaalis mais buñ leen leen defalee formation dinañ am loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku ba di def seen ay produits transformation des fruits et légumes les céréales ñu ngi fi dimbali leen leen ci wutal leen ci ay ay financement ci 3FPT ñu mën a demal seen bopp loolu ñu ngi leen koy ñaan mënuma jeexal te gërëmuma santuma ñii nga xam que ni c'est une délégation qui est par le ministre Abdou Ndéné Sall en la personne de mon grand frère Mamadou Ndim maa ngi lu dama fàtte woon maa ngi ci jégalu bu baax ak ñii nga xam que ni ils sont envoyés par le ministre Antoine Mbeng jot na correspondance j'ai eu son chef de protocole waxoon ma ko dafa voyagé mais dina yónnee ñii nga xam ne ce sont ses chargés de mission yu ñëw toog fi nii maa ngi jégalu ci bu mu guddalee mais xol bi la ñuy waxee ak yéene pour Ndiassane encore une fois di leen sant di leen gërëm Amadou Ba le 25 février ñu fal ko au premier tour Sénégal jëm kanam Ndiassane jëm kanam jërëjëf. li nga fi li sëriñ bi wax léegi laay wax man aw ma néew ma nag kenn bañu ma mais man sama papa aw ma noonu am na ñoo xam ne neexuma leen mënu ma si dara mais man toppatoo ma ku ma gëm ak ku ma gëmul ku ma gë ku ànd ak man ak ku àndul ak man c'est pas mon noonu laa ma semel te kenn du ma changé na kenn du nekk màgget di changé jikko kenn mënu ko wëlbati jikko ba ma am juddoo ko màggee ko ba tool nii mënuma xëy suba politique tax ma di ko changé man jik politique du changé sama jikko ni ma meloon yaa vingt ans noonu laa mel ba léegi du ma changé politique na dama gëm ni bu ko nit ñi def jariñ nit ñee tax defaral nit ñi moo tax na pour nit ñi moo tax mais politique pour xeex pour saagante pour beddante man bu lu boo politique du ma ko def ku koy def it doo ànd ak man am naa fulla bu toll nii booy def loo xam ni neexuma te ñu ànd ci politique it bu may dem bàyyi ndax ci ginnaaw loolu yàlla defal na ma ko parce que man lu may gëmul duma ko wax lu ma gëm rek laay def Alpha dama koy sant ndax may na ma occasion bu ma toogee man ak Diagne Sy ndax boobu ba léegi ñi nga xamante tooguñu mën nañu gisee man ak moom ci ruux te da yéen doo leen ko xam wala ñuy dajee ci bureau te doo ko xam tey mi ngi nii toog sama kanam bu ma neexoon ne ko du ma wax da wax ba pare ma wax bi mu waxee léegi-léegi dama ko def bàyyil protocole bi mu def li muy bëgg a def mu ne nañ koy changé ma ne ko déedéet man invité laa yow yaay président lii man invité dama ñëw parce que dama war a ñëw parce que ci laa bokk bu ma ko yëgoon te woowu leen ma ma ñëwal sama bokk parce que loolu laa gëm ci politique nag lañu ñu nekk jëm ci benn échéance dama bëgg rek ni Sénégal waxuma nag waa waxuma waa Ndiassane yëpp xam li ma ngi koy répété waat mu leer dama ne bi ma koy xam xaw ma waa Tivaouane wax naa leen ko waxaat naa leen ko waxaat naa leen ko ba ma koy jàpp xaw ma waa Tivaouane ba mu koy digal xaw ma waat yaa woon boobu temps moom adjoint gouverneur la man ma nekk adjoint maire de Dakar adjoint nekk maire de Dakar ak maire de Plateau kon man ba may nekk loolu yàgg na du tey kon man li may def ragaluma ko bi ñuy politique it bi muy nekk maire moom xam na man xam naa bi ñu koy tànn man maa ko tànn ka mu neex ka mu naqari maa ko tànn. bi may ñëwaat fii dama ñëw fekk mu toog bureau ma ne ko jaañ mu naa ma ne ko xanaa xam nga lan la dangay dem bàyyi maa place yi ma toog il faut ma il ma jox dëkk bi parce que fit bi ma bëgg ñu liggéeyee ko dëkk bi amoo ko ndax yow fonctionnaire nga man duma fonctionnaire loolu mooy dëgg parce que am na loo xam ne pour ñu def ko si dëkk bi dafa laaj xeex ak xuloo te moom bu xeexee ñu dàq ko te bëgg ma ñu dàq ko ma ne ko kañal ma dëgg rek mooy dëgg ma ne ko xajal ma liggéey bi dafa laaj xeex te yow mënoo ko man mën naa ko ma ragalu ma dara yàlla dong laa ragal man kenn du ma dax kenn du ma affecté kenn du ma muté kenn du ma def tous yàlla def yàlla defoon na ma teranga ba pare bu la yàlla defalee teranga da ngay gëm lee la yàlla defal nga téye ko sa loxo dama ne jaañ sama rakk la ku mu neex sama rakk la ku mu naqari sama rakk la ku mu neex sama jarbaat la ku mu naqari sama jarbaat la toppatoo moo ku mu neex ku mu neexul sama yoon si wax day mot nit ki booy wax dangay wax li nga gëm boo waxul loo gëm bàyyil parce que loolu laa gëm gëwuma li nga xam ne tàggaloo bi nit ñi bëgg ñu def duma ko def ak kenn gis ngeen ni ma mel ak jaan ci loolu laa mel ak ngalgu ba ma koy xam xamee wu ma ko tiyaawoon Ndakaar laa xamee moom benn xaritam bu ñu wax audi lii toujours ma nettali ko dama leen di bëgg a wax ni que kenn ku ci nekk fii seq naa yow avant mooy dugg Tiwaawan Tiwaawan nag maa ngi fi depuis cinquante ans cinquante ans fekk na ma si dëkk bi maa ngi fi lu fi waaye def boo ko xamul it dégg naa ko wala fekkee naa si tuuti te ay mag laa daan àndal kon lu tuuti tuuti rek lu mu ndaw ndaw am na lu ma jàng tuuti politique nag nit ñi dañ ko bëgg tuddee noo xam ni nekkul. politique xam nga mooy lan am sa sarak mu bugg am yoon bu mu jaar pour liggéey nga wan ko yoon bi ba mu am lu lu koy jariñ nga am sa jigéen mu bugg ndimbal nga fexe ba ndimbal bi àgg àgg ci loxoom nga am sa xarit mu sonn nga fexe ba dimbali ko loolu mooy politique mais politique xaajaloo leen kii moo la gën kee gënu la comme li sëriñ bi wax léegi gëwuma ko alpha li tax ma naw la wax naa la ko sama kër wax naa la ko sama bureau nee naa la dama la gis ngay ànd ak jànc yi di ci def ardeur boo xamee ni que bëgg réussite moo tax nga di ko def yow ñëw nga sama kër interview man ne wax nga ne ma non il faut nii ngay defee wala nii wala nii wala nii boobu temps ñu ngi jëm élection dëgg loolu dëgg nit ki bu fekkee dafay wax yow professionnel di la wax lu lay jëriñ jàppal ni kooku dafa bëgg. loolu moo tax ma jàpp la moo tax nga wax ma man la damay ñëw premier jour bu nga wax danga nga dajeeg ma ne man la soxlawul nga di ma jox carte naa yëg ni na nga def rek damay ñëw indi jarul nga indi carte loolu laa la wax. nga ne ma déposé naa carte man na ko man la da ngaa sonn rek parce que man lu ma gëmul du ma ko def lu ma gëmul duma ko wax dama bugg rek lii mi xam naa ne balaa cinq minutes mu dem xam naa ne nit ñaa ngi seetaan di wax lu leen neex waaw. nit ñi nañu wax lu leen neex man jàpp naa li ma neex li ma neex mooy damay ànd ak yow mu neex la nga bañ ma ànd ak yow mu naqari la mu mu loolu la neex nga wax damay ànd par force <laughs> loolu laa moon li ñu may wax maa ngi leen di jégalu wasalaam. li ma sama rakk fontoo toogal bu sa wax jotee nga wax bala may dellu si ci moom ma nuyu rek le xalif général Xaadiriya cheikh bu maxtar kunta nuyu ëxlu kunta yu yëpp nuyu leen jaar ci alhaaji mamadou le dégg naa Alpha ni ko fois coordinateur benn Bokk Yaakaar coordinateur xadara bi nekk suñu xarit wax na dëgg nekk adjoint au maire jaar ci moom nuyu naturellement monsieur le maire Ousmane saar suñu frère nuyu ñaari Mouhamed yi benn bi laa xamoon xam naa beneen bi tey di wax léegi nuyu ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla ni ko Ousseynou waxee taxawaay bi mu am si njaboot gi ak dayraan yi yàlla jàppale ko ci bu baax a baax ñu rafetlu man ak ñi ma àndal yëpp kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko fi nuyu waa groupe Ngor Teranga Tiwaawan dafa am basak Ngor Teranga fii ci Njaasaan ñoom ñu créé groupe ngorteraanga ma tàmbalee ko ci ndeela ndax Alpha kontaan ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom la ñoom la àndal nuyu sëriñ Hamza bu baax su ma ñëwee Njaasaan it dinaa nuyu sëriñ Bamba Kunta nuyu soxna Ndey Dégéen nuyu jigéen ñi nuyu bu bi nga xamante nii moo représenté Kodière Cheikh bu maa ngi lay nuyu ci kàddu yi nga yëkkati sànq nuyu waa Njaasaan yëpp jeunes yi mag ñi ndaw ñi bàyyiwuñu kenn waa gite it maa ngi leen di nuyu di kontaan si seen teewaay loolu moom si carte d'identité Ndiassane la bokk nuyu waa njiite tamit bu baax xam naa guddi na ñenn si ñoom dem nañu monsieur le maire ak waa Ndia ak ñu fi teew ñëpp ànd ko ak waa Tivaouane ba faw ànd ko ak waa APR mais nuyu sama naataangoo yi nga xam ni Abdou Ndene Sall moo leen fi yebal ba pare ñu ñëw seen ñëw bopp muy permoodu di di ay dara di madame Mbacke suñu jigéen jóge ba piir waaye nag beral nuyoo Alpha bu baax a baax suñu frère ndaxte ku la mag fuuf ëpp la expérience monsieur le maire su demee way booye bàppam jàññis makis nga xamante nii yéene rek la liñ fi waroon a wax yëpp duñ ko mën a wax niñ ko bëggee woon ndaxte guddi na te toogaay bi yàgg na ndax fii ñu jëm su ngeen gisee monsieur le maire Demba jëm si mu jaral ko mu ñëw sànnante ak yéen ay kàddu mooy dafa am solo fi ñu jëm ci Sénégal niñ koy faral di waxe Sénégal dafa nekk ci selebe yoon jaar ci benn bi jëm kanam jaay ci beneen bi nag mu nekk échec ci ñun bi muy jaar pour mu nekk réussite fi muy jaar pour Sénégal mën a mooy fi nga xam ni le président de la République Macky sàll moo ñu ko fàkkal fàkkal ñu ko développer Sénégal fonk suñu kilifa diine yi c'est très important ndaxte nag ku ñuy jiite ñun Sénégal da ngay bokk ak ñun ay valeur te valeur yooyu dara ëpp ci solo nag wax dëgg yàlla fonk suñu kilifa diine yi tegu ko ci kàddu rek mais daf ko def si jëf dëkk boo dem lu mel nii la fi def lim def Njaasaan wala lu mu lu mu def Tiwaawan wante it ku xam 2012 Sénégal ak tey ak ñi am expérience gis nañ ni Sénégal fa mu nekkoon ak tey jii sore yoon lool te ba mu koy def xereñam volonté am gëm Sénégalam bëgg Sénégalam la ko defee waaye nag ñu jëm foo xam ni képp kuy ndawu Sénégal surtout les jeunes sa espoir war na am espoir bi li ko indi mooy lañ doon togg li nga xamante ni yàgg na Sénégal bëgg ko am amuñu ko muy gaz ak pétrole te bu ñëwee lu mët ñetti téeméer jëm juróomi téeméeri métier ku amul woon métier di nga ko am defe naa ni ñiy liggéey ci bureau yi sax dañ leen di wëri ndax lan ndax ku xam secteur pétrolier xam la fa am si wàllu salaire lu am solo la kon dinañ amaat occasion gën ci développé ñu xam ne ñun ñëpp suñu njariñ mooy tey le Sénégal émergent bi président taxawaloon te ki ko tëraloon ànd ko ak moom ja ànd ko ak moom si PAP 1 PAP 2 PAP 2 ba PAP 3 muy le premier ministre Amadou Ba mooy ki yàlla dogal di moom moo ko mën a yeggale ba Sénégal lii nga xam ni tàmbali nañ ko échec échec du ci am. le jeune qui a parlé tout à l'heure de GCO wax ni ñoom liggéeyuñu fa te soo jëlee ndar ba ndakaaru ñëpp ñu ngi fay liggéey xam naa ni souvent dañuy yàq seen xel ci côté boobu na leen industrie yi waaye nag ñooñu ay secteur privé la maanaam ay privé ñooy ñëw investir seen xaalis di exploiter di yóbbu dëgg la nag président Macky Sall tëral na de telle sorte que zone ba ñu nekk dafa leen di wax ni na ngeen fay encouragé di fa jël ñu fa dëkk mais ma koy wax ni problème boobu mu wax moom la waa Tivaouane am moom la waa Pire am moom la ñeneen ak ñeneen am monsieur le maire mii tey defe naa ni seeti na leen pour xeex loolu mu jóg fi waxul ma rek GCO ICS ak lépp luy industrie ñoom ñi ngi ci di ci dox waaye nag lépp dañ koy teg ci waxtaan parce que loi bi moom moo leen may ñu ñëw exploiter loi bi moo leen may façon bi ñuy recruter waaye nag obligation la ci wàllu RSE mais obligation la également li président indi na benn loi boo xam moom la ñu la le contenu local ci pétrole bi de telle sorte que même étranger bu ñëwee benn pourcentage bi 30 pour cent yi faw mu nekk sénégalais faw ñu sous ko loolu yëpp ay temu waxtaan la yoo xamante ni incha allah dinañ ko gën a développé.